man nag Sidi Lamine Ndoye damay jël kàddu ci en ma qualité de représentant du personnel au conseil d'administration maanaam fa nga xamante ni mooy kuréel gi gën a kowe ci ni ñu war a yore hôpital bi man ma représenté fa képp koo xamante ni da ngay liggéey da ngay liggéey ci hôpital bi képp koo xam da ngay liggéey ba ba directrice ci boppam moom ci moom la commencé ba wàcc suuf ñoom ñëpp man maa seen représentant foofu looloo ma jox kàddu gi balaa may commencé damay wax ci tamit bépp kilifa bu nekk ci hôpital bi teew nga fi dajale hôpital nag xam ngeen ni mu yomb ndax instant bi ñuy wax yéen ñi ngi tiim ci ay nit di leen faj ñu nekk ci diggante dund ak dee moo tax dañuy naan cuut cappe dangay gis ku toog ba yàgg daw ñëwaat moo tax kuy yaakaar mbooloom hôpital da ngaa xamul lan mooy liggéey ci hôpital ñii ñëw dañoo sacrifier ñu ngi en connexion ak la ñu bàyyi di leen remercier ci seen présence balaa may dugg ci mbir mi dafa am loo xamante ni il faut ñu saluer ko mooy teewaayu les parent des victimes balaa ma ñëw nuyu kilifa yi imaam Abdallah ak sa kuréel boobu les associations des des victimes ñu ngi leen di nuyu parce que lépp ñoom la imam Abdallah représenté famille imam Mansour Diouf représenté famille imam boo xamante ni nii Tiwaawan ñëpp xam nañ ni moom ak alaaji Malick woon sëñ Babacar ay imam ratib ca zawiya sëñ Babacar zawiya alaaji Malick sama xarit bi Abdallah ak Alioune ak imam Oustaz Lamine Diouf mu nekk même famille man ma juddoo ndutt ca daara jooju jàngee fa ñoom ñoo ko jiite imaam Mansour Thioune mii ñun ñëpp ràññee nañ ko ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ah, mbir mi nga xamante ni amoon na fi tey jii le 25 le 25 mai 2022 am na lu bëri lu xewoon ci jour boobu am na ñu ci juddu am na ñu ci dee am na ñu ci takk jabar. am na ñu si ngénte am na ñu ci am liggéey am na ñu fa dàq am na ñu ci am bànneex am na ñu si am naqar waa lan moo tax àdduna bi yëpp télé yëpp jël seen image indiwaat le cinq mais eh, maanaam Abdoul Aziz Sy Dabakh hôpital Abdoul Aziz baax xam nga loolu moo am tey te pour pourtant le cinq mais boobu 2022 lu bëri amoon na mais ñëpp bi lañ tànn def ko te tey jii ci seen i journal et cetera li fi amoon moo rëy mu doonoon lu metti lu dal suñu kaw. moo xamante ni dafa mel ni dañu sànni bomb keroog guddi gi fii ñun ñëpp tasaaroo gis naa fa ay kilifa tànku neen lañ doon doxee ñun ñëpp dañoo yéemu woon xamuñu sax lu ñuy def suñu xel ñun ñëpp dem ci directrice bi nga xamante ni moom mi symboliser personne morale hôpital bi keroog jour boobu ñun ñoo ko tane parce que ku ko gis keroog yërëm ko parce que foo xamante ni nag dañ fay sauver ay vie maanaam fu ñuy rawle ay nit bu ñu demee ba ay nit di fa loru ci lu leen neexul mais ñooñu dañuy yéemu. metti woon na mënoon naa gën a metti nag bu ci parents victimes yi dugalul woon seen loxo dina gën a metti jàpp nañ fi ay xale tëg leen ñeenti weer ñu nekk fii di grève lu ne ñu def ko takk brassard rouge keroog bañ demee taxaw ak parents victimes yi ñu am lu ñu def jàppale ci bind lettre de clémence benn kayit buy wane ni njéggal nañu procureur bu dee ñun da de ñun la ñi nga xam ne suñuy doom moo loru waxuma nag ñu nekk ci rajo yi wax mais ñun ñi nga xam ne suñuy doom moo laru ñoo ñu nekk si hôpital ba ñu baax lañu service boobu ñu nekkoon ay xarit lañ fa am service boobu ñu nekkoon teraanga lañ ñu daan defal baal nañ leen bu dee ñun la rek teggi leen li ngeen leen teg juróom ñaari fan ñu libeere xale yi te loolu bu amul woon dina gën a métti kon ba tey mënoon nañ fa nekk kon parents victimes mënuñu leen a fay encore une fois manifeste nag suñu solidarité ci travailleurs yi parce que loolu tamit bi mu amee travailleurs dañoo ànd nekk benn bopp mënoo xàmme tey waa direction wala nga xàmme alors ñeneen ñi ñun ñëpp dañoo ànd nekk benn dànk di liggéey di di di di leen seeti di cotiser di dem di génn xaalis bëri ay avocat duñu liggéey bu weer bi dee ñu war a fayee ko mu yeex ñuy muñ loolu lépp wane na ab solidarité ci biir travailleurs yi kon loolu rek liñ ciy jàngat ci na tey bi mooy que ni àdduna yàlla dina la teg nattu mais natt boobu du demee bay jeex dina indi mu mel ni xéewal ndax àdduna noonu la bindee yéen ustaas yi yéen a ma gën a jàng te xam ngeen alam nasara lañ ca wax lépp ci wàllu lu neex ak lu naqari ci wàllu le bonheur et le malheur entre l'échec et la réussite te defe naa loolu mooy àdduna te nag wax dëgg yàlla tey jii nii hôpital Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane kiñ ko tuddee tax na daraam du ndaw ñun xam nañ si dara daraam mënul ndaw lu fi am dina am retentissement international am na si ñoo xam ne nee nañ ma c'était la première fois à part gàmmu ñu gis fi France 24 ak BBC ak RFI ay tubaab yi xonq coy dugg si hôpital bi di def ay film su ko defee nag ñuy gërëm ñëpp. jërëjëf. macha allah. <laughs> onze bébé yi am na lu bari lu mu wane ndax mbir mi bi mu amee le xalif général de Tidjane Serigne Babacar Sy Mansour dafa délégué doomam bi ñuy wax mu Serigne Moustapha Sy affecté ko hôpital keroog mën nañu wax ni Serigne Moustapha Sy bi affaire bi amee. fi la fanaan si bureau directrice bi lu mat ministre yi nekk Sénégal ñëw nañu mais autorité Tivaouane ni dañoo ñëw ànd ak service social ak direction mu am yu bëri yu ñuy di te lu kenn gisul am na lu bëri loo xamante ni service social bi ak direction bi ak parents victimes yi ak le préfet Serigne Moustapha Sy ak président conseil d'administration ñu ngi doon réunion ñu ngi doon gisee seen biir di di di régler ba mbir mi débordé wul ndax mbir mi suñ ko contrôlé wul woon noonu mënoon naa indi manifestation populaire mu jur leneen mais le préfet de Tivaouane le khalife général des Tidianes dañoo surveiller affaire du début à la fin ñun xam nañ bu baax li ñuy wax am na lu bëri loo xam dund nañ ko mais du lépp la ñuy nettali ndax mbir mi du woon lu ndaw wante nag. sëñ Mbaye sëñ Babacar si bi mu yebalee doomam sëñ Moustapha jugu fi ba keroog xale yi libéré wu le préfet jugu fi le préfet jugu fi ba xale yi libéré wu le le maire Diop si fekk nañu police ñuy taxaw ñaxtu mu jëndal ñu boisson may ñu xaalis bu bëri ak Seynabou Gaye Touré ak ñépp ñoo xamante ni nii def nañu ay gestes xale bii ñu tëj tey Massat Massata fekk nañu maire yi fekk nañu police Massata mi nekk te yàlla yàlla génn ci kaso boobu mu ne mu jën ay kanet yu bëri ak ay ndox mu bëri te boobu nekkagul woon député kon nag nit ki bu fekkee yàlla dafa la teg nattu nga nekk ci jafe-jafe mais ñiy taxaw xam nga di la soulager loolu di la seet di la wax du ñàkk bis bu ñëw nga delloo leen ko parce que am na ñeneen ñu ko waroon def peut-être defuñu ko mais daal ñu ngi sant yàlla ba am dëkk boo xam ni kilifa am na fa ndax tey jii nii lii am nii bu amoon beneen dëkk bu amul woon ku mel ni xalif général kon gëm naa ni sama gars yi ba léegi ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ci jeel bi ndaxte tamit parent victimes yooyu mënuñoo të xalif général bi parce que ñu ci ëpp ay taalibeem lañu moo tax Tiwaawan nañ sant yàlla kilifa loolu lay jariñ mooy que ni des fois dañ xale yi dañu nekk ci tendance di wax sëriñ si lii mais bis boo demee ba xam ni jànkonte nga ak nguur nga xam ni nguur moo ëpp doole sëriñ rek moo la ci mën a génne te nag xam xalif général parce que le temporel et le spirituel le temporel le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel coexistent maanaam ñaari tànk la gis nga pouvoir spirituel pouvoir temporel ñaari tànk la waaw mais imam ñaari tànk bu ñuy jëm fenn est-ce que du ñu ànd dem xam nga waaw benn bi mënu dem ci ginnaaw bis des dem si kanam dëkk bi nag pouvoir temporel état moo ko yore ak pouvoir spirituel maanaam les confréries religieuses man de loolu mooy sama conviction te defe naa Sénégalais yi bëri loolu lañ gëm di remercier tout le personnel bi fi teew di ñaan lii bu mu fi amati wante chaque année nag nañ fiy daje di fàttalikonte di nasante coloré di ñaan pour ñaan gi amal ñëpp njariñ ñu am ci njàngat donc sëñ Abdallah ñu ngi leen di sant ñu ngi leen gërëm yéen les parents de victimes lépp yéen la macha allah seen taxawaay rafet na ba tey jii ngeen taxaw mënu ngeen a gedd hôpital bi mer mais defu leen ko yaa ngi nii boobu ba léegi depuis 15 jours fu ne nga dugg fa. vraiment mu ngi leen di remercier directrice mi ngi leen di remercier saf tout tout le personnel franchement nous serons nous serons toujours reconnaissants ci acte de de de de de yi ngeen def xam nga acte de clémence yi ngeen def jëmale ko si ci hôpital bi amul benn plainte bu fuse des onze personnes benn plainte donc bu si amoon constitution partie civile mooy am kooku tant que tant tant que retiré wu ko dañ leen di juger te loolu amul donc il faut pas que les gens pensent que affaire dafa yomboon way lii lii ñii nii ay gor lañu na leen leen remercier jàll na mais nañ si bàyyi xel c'est très important li ñuy wax nañ si bàyyi xel mënoon na diis ba tey ñoom ñu teg leen fële ñu nekk fii duñu leen mën a dara donc je vous remercie eh, yàlla yàlla yàlla wàcc xéewal yàlla fii yàlla def tamit ay kii am na ay information yu jëm ci ay néonat yooyu damay jox privilège bi directrice mi nga xam ni moom moo jël hôpital bi dina am ay bonnes nouvelles yu mu leen di yu leen di indil par rapport ak ay néonat ak ay investissement ak aussi yi nga xamante ni defaat nañ ko ci diggante bi ci wàllu hôpital bi pour que lu mel noonu bañ a amati moom xam naa dina ci laal su ko defee daal mu ngi noonu sëñ Mansour ñu ngi leen di gërëm imam Mansour Aline Abdou Abda Abda Abdala ñooñu ñëpp sama <laughs> sama waa ji la donc ñu def noonu déwén si incha allah yàlla nañ.